jaale ki nga xamante ni moo fi jógee muy Papa Thione yan témoignage nga mën a indi ci moom. xanaa ci baax ci gore ci dëggu ci am jom ci nangoo liggéey ci bëgg njaboot taxawu njabootam ba mu doonee xale la commencé liggéey am jom xam ne li muy def ful laa koy yeggale mu nekk ci waaw du te du génn gaan ci yooyam lum mu woy téere la lu woy rek pour nit ñi la. waaw. lu li ma gën a marqué ci moom mooy simplicité am ah humilité xeebul kenn ku ñëw mu wuuf la taxaw la bari na ñoo xamante ni ñu ngi fi yor dara mais mooma ah, coon remplir na mission àdduna nag nii la bu sa mission jeexee nga dem àdduna moom day metti nag day metti des fois nga demee foo xamante ni da naan noo des na des na fekk desul yàlla moo koy jeexal yàlla lu mu yàlla lu mu def rek noonu la jaam bu ko xam rek noppul man nag dafa nekkoon sama grand kon sama xarit kon sama mag nekkoon sama soppe bëgg ma yéene ma ni ma dinaa woy bantamba ndaxte ma ne ko lu tax mu ne woy parce que bantamba gars yi jàng nañ ba jeexal bi amuñu créé wuñ bantamba yow nga créé bantamba kon naa ci jàpp way ci mu def ko yaakaar naa ne jigéen wu may ah def na lu rafet fa mu nekk daal man daal am naa yaakaar ni coon ma nga àjjana daal man daal pour man coono nga àjjana. laaj mooy ki jom am fit boo amul fit doo dem na Wally am jom na Wally am fit te na jom am na fit te ba fii ñu toll nii yàlla sàmm na ko ci ñun ñëpp nag xarit bàyyi yeeg mbokk yi bàyyi yeeg ñëpp nañu ànd jàppale Wally mu ne ci kanam ñu soutenir ko bu baax te yaakaar naa ni attan na mission bi boo ko xoolee sax xam ne attan na ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad